xew dafa wanewaat rek ni justice amul indépendance au Sénégal may masawu nag magistrat yu bëree bëri li ci ëpp nga xam ne ay góor lañu ay patriote lañu ñu jub lañu ñu gëm seen liggéey lañu waaye ñu leen di xeex di leen xoqatal ak di leen ber parce que su ñuy nommé ci yenn poste yi dañuy dem seet lu gën a nooy ak lu ñu garo gën a mën a manipuler moom la ñuy dem jëli ku ci am dignité am am personnalité am ñu jàpp la sànni la fële fële ci xaj loolu mooy li fi xew li ko indi nag mooy président de la république. ak ministre de la justice waruñoo siéger ci au conseil de la magistrature loolu xewi na fépp noo am séparation des pouvoirs ci cadre boobu te tontu bu ministre bi tontu kenn ci juge yi ko ne lii nga def du yoon am courage wax ko ko fa mu ko ko war a waxee ci kanamu président mooy dañoo soxla foofu ay magistrat euh, ay juge euh, d'expérience loolu wane na ni c'est l'exécutif qui choisit ses juges ku la ku la ëmbal nag wala ku la bal ay gët fi mu bëgg nga xool ngay xool looloo fi am kon bu ñu kenn wax indépendance la magistrature loolu amut ñaareel bi mooy ñi ñu tànn ñëpp man annoncé woon naa ko bu yàgg su ngeen demee sama post bi ma def sama page Facebook le 14 juillet laa ne woon euh, kii ñuy wax euh, Amady Diouf la ñuy yóbbu procureur loolu tax dossier 94 milliards yi nga xam ne mu ngi woon ci kaw taabalam mu gaawantu def ko classement sans suite ci loo xam ne du dëgg ndax ba mu koy def boobu jamono euh, chambre civile tribunal on classe de Dakar jël na décision ba dëggal ma ba ne nañu delloo famille Thiandoum intégralité titre bi loolu nag suñ ko waxee mooy 94 milliards yi ñu jox jàmbur xaalis bu ñu sàcc la xaalisu réew mi la bu ñu jox ay nit ci loo xam ne moomuñu ko ab juge ni muy gisee loolu nekk chambre d'accusation gaawantu ne maa ngi koy classé sans suite te lan la wax ni tax mu classé ko sans suite we weddiwul ni càcc gi am na de mais nee na kii yooxu wëpp sàcce yi du moom moo war a yooxu wëpp sàcce yi masalan sàcc dugg na cib kër dajji ko porfor bàyyi ji di daw doom ji gis ko ne wub sàccee gars yi ne noonu doom jee war a wax bàyyi jee war a wax loolu ab magistrat dina ko wax léegi nag tey yóbbu nañ ko procureur dina fa fekk rapport nag ndax nag def na rapport am déposé ko octobre 2019 ne Ousmane Sonko li mu wax yépp dëgg la te maa ngi demandé le parquet mu ubbi ay une instruction judiciaire contre ñi nga xam ne ay escrocs lañu Serigne Bassirou Gueye teg ci tànkam kooku moom histoire dina retenir ni musiba magistrature weesuwul kooku te nag dafa yàgg a yuuxu moom sëñ Bassirou Gueye ne Ousmane Sonko dinaa ko tëj fu ne mu wax ko en ma en boo xam te mosuma koo gis xanaa ci télé lu ne mu wax ko menacé na ma fii ci ay conférence de presse dem na ba ma fi de te yéen di néeg la te keroog bi mu amee dossier ñu ne ko dossier Ousmane Sonko la ñemewu ko woowu ma jàkkaarloog man du dul dem jël ndeysaan dem Sylla sàmba Sall transféré ko dossier bi lan moo ko teewoon yor na dossier yor na PV d'enquête yor na lan moo ko teewoon mu wooma dafa daw parce que ci complot bi la bokk. léegi nag dem na pale dina fa fekk soo maître es complot ñu ànd di complot kon kii mënul nekk procureur buy régler problème bi Macky Sall juróom-ñeenti weer yépp da doon ut lu lu lu mel ni ñi mu fi bëgg a jëlee wala lu leen yées parce que yàgg naa ko wax lii di poste procureur lii poste doyen juge cour suprême eh, chambre d'accusation conseil constitutionnel moom loolu mooy magistrature am de na fexe ba téye loolu rek.